ma bëgg mu delloo ci xelam xam ni ba ñu koy fal bu ñu xamoon ni fii la ñuy mujj duñu ko fi teg li may wax nag ça n'engage que moi mm-hmm. te lu ma ci góobe gar ko nëbbatuwuma laqatuwuma mm-hmm. bu ñu xamoon ni fii lay mujjeeg réew mi duñu ko fi teg ma bëgg mu delloo ci xelam te xam ni léppay jeex mm-hmm. te ku ko ni woon dina fi toog 2012 ak léegi mu weddi ko ndax plan bu ne tëraloon nañ ko ko kon su xalaatoon tuuti dina am yeneen doxalin yi mu def lu dul di tëral ay nit di leen comploter ba ñu yegg si fii tey mës naa ko wax ni ko moom yàgg na booba jóge na ci nguur gi mu nekkoon ñu daje ci benn barab ñu présenté ma ko ma ni ko su fekkee ni yaa ngi gëm sa bopp gëm yàlla bu yàlla ne di toog ci réew mi di nga fi toog waaye booba léegi ma di ko suivre amoon yaakaar ci moom ndax ñu ko fi jiitu woon ñëpp ku ci nekk def nga fi dara ba dem waaye ay mag la ñu woon nit ñi jàppoon ni comme ndaw la luy door a yegg juddu après l'indépendance dina yóbbu Sénégal fu ñëpp ne est-ce que malheureusement tel n'est pas président delloo sil sa xel te nga seet sa entourage yi fi xew bari na te nguuru yàlla rek a jeex bis dina ñëw di fi génn ni ci lii wala ci nale li xew nag ñu ne ku ci wax ñu rëq sa ndigg wala ñu jële la fi mooy troisième mandat yow yaa taxawoon ci devant devant le peuple sénégalais adduna yëpp di la dégg nga waat ni lii ngay jeexale ñu dem ba ci biir feebaru nguur dugg la gis nañu la xew ci suñu voisin yi duma tudd tur di tooñ bu fekkee ni loola moo la ambitionné ba tax nga jàpp ni foofu ak fii ñoo yem yaa ngi ci erreur monumentale delloo ci sa xel ñu ànduñoo ak yow ci lii léegi sax réew mi àgg nañu ci sëriñ su waxati sax ñu ni dañu noppi torop waaye dafa ci am ñoo xam ne ay suñu kilifa la ñu mag la ñu wax nañu ba sonn mm-hmm. te mag nag ku ko yëgul mu yëg boppam mm-hmm. teg loxoom ci dënnam ni mën a diw looloo tax ñoom dañ leen di ñaanal yàlla ñu yàgg fi waaye ñu nag yow nag dootuñu noppee fi insha allahu taala mm-hmm. ci kattanu yàlla ak baaxam façon bu ne ñu ngi koy jël malheureusement dégguloo ñu lii xew nag li ma ciy indi man li ma ci gën a metti du sax affaire Sonko dëgg la metti na. ak li ñu ko teg ak li ñu ko wax. te li ma jot a dégg yëpp ci média bi dégg ko ci ay nit dégg déglu ko ci ay sources yoo xam ni wóor na ma ni ñii lu ñuy wax xam nañu ci lu leer lépp dañ ko comploté de A à waaye nag olof Njaay nee na kuy gasal sa noon pax bu mu xóot ndax ëllëg ay tax mën nga ca dugg. Mm. fii lu ne xew na fi. yàlla ni patt rek di seetaan. ñu jàpp ni dafa fàtte déedéet dafa dënnir lu rek président delloo sil sa xel président delloo sil sa xel te nga seetaat sa entourage